waaw sister maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu baax a baax di nuy internet Rewmi mi TV ak auditeur Rewmi FM yëpp maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di am contentement bu baax a baax dalal leen tey euh, ci suba si ñu waxtaan. d'accord ah. euh, euh, xam nga mooy ñi mm-hmm. kan mooy Sidi Diop. waaw kan mooy Sidi Diop Sidi Diop benn woykat la. woykat la bu débuté ci carrière am euh, en 2014 bon si di je mille 2014 mooy ci laa commencé nekk ci mariage yi ci simb yi ci mbapat yi débuté ci suma carrière nekk jeune euh, mbapat ci nag bu baax a baax a baax ba en 2016 ma dem rejoindre groupe Nokos bande bu salaam jallo ba mille 2017 ci laa defee suma premier single ci laa def suma grand théâtre def suma tournée internationale Sidy Diop benn artiste la sénégalais artiste compositeur euh, di way ñëw sénégalais yi wax dëgg yàlla yaatal ma ubbi seen xool def ma ci bëgg ma koo koy Sidy Diop ok yow say début noo ko dundee ndax euh, compliqué woon na wala amoon nga koo xam ne daf la jàppale. ah mais bien sûr euh, comme on le dit souvent tout début est difficile euh, si artiste bu débuté rek par force début bi day difficile ci côté parents yi parce que ñoom li ñuy gis mooy euh, nga dem continuer sa jàng parce que bu njëkk musique bu ñu ko mosaan a tudd rek peut-être parent yi dañu benn vision. mais ñun fexe nañu ba dindi loolu ci seen boot fexe nañu ba dindi loolu seen xel bu njëkk méttoon na ci côté mbokk yi parents yi parce que dañu bëggoon ma jàng mais dama mës a gëm li ma gëm nekk ci sama yoon di leen di leen di leen sàqu chaque jour dama leen di wax ni ñaanal leen ma rek duma ko mës a booleeg lu leen neexul ba tey ñu dem ba ñoom ñëpp nekk ci sama ginnaaw boot ma uuf ma ñaanal ma na ma demal ñoom ci sa ginnaaw waaye aussi li nga ñu waxoon bu ko booleeg dara lu ñu lay xeebee. sànq yaa ngi euh, évoqué say parents nan la ñu réagir bi nga waxee ni que nga bëgg finalement woy bàyyi jàng bi. bon au fur et à mesure may dem di woy ñu yëg ni di Diop a ngi woy ci simb yi Sidi Diop a ngi woy ci mariage yi ngénte yi ñoom ñoo dem ba xam ne ndaw ak li mu miin rek ndaw ak lu mu miin bu ko bàyyee rek wet ñoom ñoo dem ba xam ni Sidi Diop euh, ay woy la bëgg Sidi woy yi mi ngi commencé ëpp doole étude am ñu ñaanal ma ñaanal ma ci mbokk yi wax ma il faut nga il faut nga nga nga nga nga wax ñu li nga bëgg en fait réellement ba xam da nga ko def pour fo ou bien da nga ko def pour tekki ci da ko def pour am ci wërsëg da nga ci ko def pour ouverture ma ne leen di wax dëgg yàlla dugguma ci pour fo parce que woy euh, métier métier la comme yeneen métier yi métier bu noble la euh, ma dem nag wax ak samay mbokk ñu accepté ñaanal ma comme li nga wax ñaan bi nag kii la nan laa ko mën a waxee échange la ñaan bi mooy dinañ la ñaanal waaye bu ko booleeg dara lu ñàkk fayda man tamit ma ne la d'accord naa du ma ko booleeg dara lu ñàkk fayda te boobu ba tey mu dugg ci j'espère que sénégalais yi ak suma soppe kenn musuma dégg ci lu dul yoon waaw. d'accord yaa bi dem finalement woy. Hmm. Sidi ban classe waa jàng naa ba seconde Kébémer nag laa duggee école mooy nuyuwaale sama bàjjan Marie Diop après dem Tivaouane defee fa euh, CM1 ba quatrième ñëw Dakar nag def fi troisième ak seconde doog a doog Ah, mais tout à fait tout à fait euh, chanteur buy doog a débuté moom par force daam ñu la inspiré dama lay jox benn exemple le cas de Michael Jackson. d'accord euh, moom ki ko inspiré ki mu bëggoon James Brown la woon ku ne xam na ni Michael Jackson James Brown rek la found loolu ci artistes yëpp la booy doog a débuté dina am ñu la influence ñi la ñi nga ñi nga xam ne ñii dañuy tax nga bëgg way comme man sama côté ku ci mel ni Ndiaga Mbaye Ndeye Marie Ndiaye Gawlo Youssou Ndour jàppale Baaba Maal Ismaïla Lo suñu papa yooyu nekk fi xaar mbay ma jaaga ma joojo suñu suñu maam yooyu suñu yaay yooyu suñu papa yooyu nekk fi ñun ñoom ñoo ñu inspiré ñoom ñoo ñu jox ndaysaan maanaam ndaysaan bi ngay bi nga am ba bëgg musique ñoom ñoo ñu ko jox. man mag yi du jël beneen exemple samay magi réew ak samay maam ak sama papa ñoo ma influencé ba ma bëgg ay way. pour la plupart des jeunes ñoom hip hop la ñuy def et que yow Sidy Diop ñu consacré wu uniquement au mbalax lan moo tax nga euh, def choix boobu mbalax. waaw bon peut-être ñoom tam ñoom euh, dañu dañu dañu dañu dañu dañu màgg pour seen métier nekk rap muy muy muy hip hop muy musique bu ma bëgg di Diop màgg pour nekk waykat malgré bi may doog a commencé amoon naa suma ñaari xarit yu daan way yu daan rap du moins man maa doon def solo solo yi. man maa doon leen téel refrain yi mais dama mës a gëm eh, waaye même seen refrain yi sax dama daan way mais mais mais mais musique la nag bu ma neex pour dire vrai comme sama yenn jeunes yi ni ñu ko defee parce que boo seetloo euh, hip hopeurs yi nekk gaal seen yëpp sumay xarit lañu ñi ma bokk génération ñoom ñëpp sumay xarit lañu vraiment musique la bu ma laaj musique la bu ma neex mais je suis pour chanter. sànq yaa ngi ne comme quoi hip hopeur la ak yeneen bon euh, relation yu bien pour dire ñi nga xam ne suma ay mag lañ suma ay mag lañu ñi nga xam ne suma ay raq lañu suma ay raq lañ ñi ma ci tom ñi ma ci tollool ay jumeaux sax laa leen di wax ñoom ñëpp man ak ñoom ñoo bokk li ñuy def ñoo bokk li ñu liggéey rafet rek la mën a def parce que dara yàggut. samay xarit lañu ba pare man dama am benn chance man woykat yi ñoo ma bëgg waaw ñoom dañu ma bëgg parce bu ñu may déglu kenn ku ci nekk boo toogee sa néeg di ma déglu dangay gis sa bopp ci man waaw man chance boobu laa am dama ñëw Sénégal woykat yëpp bëggal ma seen bopp mu doon aussi lu réciproque ma nit noonu laa leen bëggee di leen wax déwénati ci ci ci ci kii ci at bu bees bi yàlla wéral baatu yokk wërsëg yi ibbi ibbiwaat contrat yi ba ñun ñëpp ñu reprendre suñu liggéey. d'accord waaw. ñu gis ne Sidy Diop dañ la doon gis souvent ci euh, conservatoire di Sadji. et que mhm. maintenant euh, c'est plus le cas lan moo waroon loolu. non non du du loolu sax ah du fekk peut-être li ci bari man tamit day fekk may joué wala ma nekk ci contrat jàmbur. loolu la demee day fekk lu ci bari may joué wala ma nekk ci contrat jàmbur. c'est ça parfois buy jouer samedi yi day fekk may jouer man tamit samedi yi buy jouer dimanche fekk may jouer dimanche wala yenn saa muy jouer fekk ma nekk Europe du ma fi nekk wala yenn saa su ma fi nekkee damay nekk ci contrat jàmbur loolu la mais man xam naa ni suma ma dem ci concert am euh, te defuma dara aw ma benn contrat dama fay dem moom it bu toogee sentir ñëw suma concert te defu dara xam naa ni daf fay ñëw waaw ah mais bien sûr ah bien sûr pourquoi pas mën nañ ko xaar waaw mën nañ ko xaar bu baax a baax a baax. gis nañ aussi que Sidy a tendance à reprendre oui yeneen mm. kontaan lañ ciy def euh, ñoom nan lañ kontaan lañ ciy def mooy li ma la wax léegi man artistes yi dañu ma bëgg tey ji le cas suñu suñu papa Youssou Ndour ma koy nuyu daf ma bëggal boppam. ba démb rek bi ma nekkee TFM buuba mi ma koy waxat daf ma bëggal boppam Papa Diouf su may woy woyam daf ma naan ma su ma lay xool. damay gis sama bopp jamono ji ma nekkee Lemzo jamono ci fulla bi ci jom bi ak ci ak ci dooley woy bi ak fulla bi ngay jox say woy su ma lay xool sama yaram day daw parce que damay xam ne xale bu am jom nga xale bu bu bu ñeme li ngay def nga xale bu bëgg li ngay def nga ñoom ñëpp barki démb Ndiaye gis nga ci sit internet bi ma tasanteeg sama sama maman sama chéri koko maman Fado maman yal na yàlla guddal fan mu ñëw kott ma chéri koko lii ak lii ak lii dama lay déglu mais li ngay woy conseil ma Papa Thion noonu la mel ci man keneen ak keneen ak keneen ñoom ñëpp Baaba Maal suñu video yaa ngi fi ñoom dañu ma bëggal seen bopp te nag wax dëgg yàlla di Diop mu reprendre son Ndiaga Mbaye wala son Youssou Ndour jaru sama ci tàggoo ndax sama ay son papa laa jël ay son yaay laa jël waaw ah, maa moom ñoom moomuñu ko man maa ko moom ah. Euh, loolu suñu borom suñu borom def na ko. loolu suñu borom def na ko Sidy Diop c' est le meilleur de sa génération. est ce tamit le ah, mais mais xam nga xam nga euh, Sénégal euh, lu ma ko lu ma ko nit lay def rek euh, da nga ci danga nga ciy jiital gëm-gëm. man gëm-gëm boobu laa am malgré nag gëm-gëm bi yar la ak teggin mais man gëm-gëm bu ma am mooy Sidy Diop c'est le maire de sa génération loolu laa gëm loolu la ma nit ñi loolu la ba pare tamit <laughs> yow foo loolu nit ñi ko wax si loolu biti la fanaan lan moo tax nga jëlee ko ci mbedd mi ñëw posé ma question bi. d'accord. ah. nga ñu posé ma question. sa ah bon. oui ah, léegi dégg nga ko. je suis le meilleur de ma génération. d'accord bii ci benn bon mbas mi moom ku ne xam ne ni euh, jàpp na ñëpp mbas mi jàpp na ñëpp sonal na ñëpp mais bon yàlla ak dogalam jàmbi ak pexem euh, programme yàlla rek euh, moo sûr yàq na na contrat yu bari. ndaxte waroon nañ def ay tournée internationale waroon nañ def ay tournée nationale mais bon ni la ko yàlla bëggee xanaa di ñaan yàlla mbas mi gaaw fi jóge ba ñu mën a reprendre suñu job delluwaat ci suñu liggéey waaw. d'accord alors est-ce que def euh, yi wala xool def nañ boo seetloo depuis boobu def nañ ñaari single ak ak ak ak suba teel def nañu yëngal. ah bu génn def taba def nañ aussi càq-càq bi nga xam ne moom mu mujjee génn rendre ci hommage suñu suñu frères yi nga xam ni mooy càq-càqeer yi euh, ñun li ñu def bi confinement bi amee dañu tëju studio liggéey ay morceaux may ko suñu soppe pour gën leen a jege parce que koo xam ne foo wootee mu ñëw tous les samedis foo wootee concert yi day bàyyi ñëw bu ñu nekkee en confinement ñu namm ngay gis seen message si di namm nañ la ci lan nga nekk ma waxtaan ceeg suma ay kilifa ñu ne moo am nañu idée kaay ñu dem studio defar ay morceaux fu mu toll nii li ma defar ci ay morceau kenn xamul lu mu yëngal rek la gars yi déggagum ak cag-cag mais des na yeneen yeneen yoo xam ne ñu ngi war a génn fii peut-être après maggal gi wala avant maggal gi mais daal loolu la ñu liggéey tëju studio defar ay bagages pour may ko soppe yi pour wan leen ni bon sori ngeen ci xef yi mais jege ngeen ci xol yi te ñoom it ñu ngi koy enjoy bu baax ci saa. a dundoo loo xam ne euh, marqué. marqué na ma waaw euh, bokk na ci bi may bi may woy di nëbbatu sama papa que ni damay woy doon kon ko nëbb sama tante rek ñoo ko xamoon parce que yenn saa su ma daan joué ci li wër ci koñ bi mariage wala dara sama tante dañ daan ñëw di ma seetaan ci sama rakk papa yi mais vu que ni man sama papa dafa xawoon na xam nga dafa xawoon tàng tuuti man ak moom dañu rusante aw ma woon wax ko ni maa ngi woy mais ne benn bis bi may joué Ravin la sama tant yëpp def mobilisation dem wax ko ko ne ko tey daal dañoo bëgg nag nga ñëw seetaan si mais waxuñu ma dara vraiment bis boobu nekk bis bu ma marke may woy ba ci yàgg gis ko mu taxaw VIP ci kaw sëpp di ma seetaan mu ñëw wàcc ci kaw scène bi kott ma euh, ñaanal ma ma sentir beneen doole ci man parce que nit ñi lu ñu ma bëgg bëgg bëgg doole doole jur doole papa ak yaay loolu beneen doole la rawatina koo xam ne mosuma ko gis ci boîte mosuma ko ci dégg. mu wàcc ñëw ba ci kaw scène bi kott ma jour boobu daal bokk na ci bis ma gën a marqué gum ci sama carrière parce que xam naa ni lii laa doon ñaan quoi dem ba sama papa nag nangu mais waxuma la ak nangu mais ñëw seetaan si ma ñaanal ma ne ma continuer maa ngi ci sa ginnaaw. bis boobu marqué na ma trop. waa bu. waaw bu baax a baax a baax a baax. souvenir bu négatif. souvenir bu négatif ci sama carrière bon. parce na artiste boo gis normalement am nga loo gis a dund loo xam ne. métti na la métti na la yow si di war nga am. Ah, mais bon xam nga yenn da nga koy jël nga métti da defar parfois. di nga di nga dal ci benn affaire boo xam ne dina la métti mais parfois danga nga naan ah lii de ñu borom da koo defar pour daf ma ko teg pour ma góorgóorlu. donc suñu dañ ne ko dañ ne ko kan nga gën a bëgg mu ne leen ma ci ñi may faral di teg natt man yooyu yëpp dama ko li tax du ma ci bàyyi xel du ko mën a fàttaliku lu ñëwaan rek dama naan ah suñu ma ko teg pour ma góorgóorlu man moom métit góorgóorlu laa ko jàppee. bànneexi daal maa ngi koy fàttaliku mais métit si ma ko sax. <laughs> est-ce ko partager ak ñun mais c'est vrai que nee yooyu du ci ñàkk yooyu du ci ñàkk ci ndaw mi soog a door yooyu du ci ñàkk daw buy soog a door yéen xama yéen saa nga programme sa affaire mu yàqu wala xama yenn saa nga xam yoo xam ne lii xam nga ni am na lu ne ci ginnaam wala dara mais bon da ngay bàyyi mu dem te xam ne ndaw buy doog a débuté c'est tout à fait normal ku ne jaar na ci. ak musique bu tay que gis nañu ah. ah. bu baax a baax maintenant ah. loo ci xalaat waaw suma xalaat mooy euh, bon suma xalaat xalaat bu rafet laa ci am musique gu démb ak musique gu tay comme li nga wax rek ñun dañoo ñëw am musique bi feneen fu ñu ko yóbbu ñëw fekk fi suñu ay mag ah ñu ñëw jël affaire suñu papa am fu ñu ko teg ñun ñu ñëw jël ko am feneen fu ñu ko yóbbu boo seetloo sax euh, dañ ko gën a moderniser tey jii musique bi am na feneen foo xam ni euh, jeune génération bi doog a ñëw yóbbu nañu ko fa moo tax boo seetloo même man sama ay morceau damay faral di jël musique bu démb yi boole ko musique sama sama sama génération lu ñu bëgg boole ko comme le cas de Diabira Diabira morceau la boo xam ni suma suma suma maam ndo euh, Njaga Mbay moo ko woyoon muy cooli cooli léegi mu leer ma jël ko indi ko moderniser ko def ko mbalax mu saf sàpp de ko jaabira mu génne saa fa taba génn toj àdduna xam nga nekk morceau boo xam ne yaa mu gën a xam. projet projet Sidy Diop bi bokk na ci ñi ngi wàcc euh, euh, ay ay tournées yu ñu war a def ak suñu producteur ñi ngi wàcc aussi peut-être def ay tournées nationales internationales mais aussi ñi ngi wàcc suma album ci lañ nekk di liggéey xam nga mooy li ma la wax léegi léegi moom dañu am dañu am nag. mag am suñu kilifa am suñu mag suñu xarit suñu lépp koo xam ni moom moo jiite affaire yi ñu ñu topp ci ginnaaw muy le DG Matar Diop Soubatel projet yi bokk na ci album incha allah na ko ñëpp xaar waaye aussi di nuyuwaale aussi suma frère suma xarit Souley Awalaay le PDG maa ngi ko nuyu bu baax a baax a baax chéri Adja. ah euh, Jaabira mm. sama doom la. sama doom la ma koy nuyu borom Pikine ah sama doom la moom daf maa bëgg bàyyile ma boppam yaayam bàyyile ma ko eh, benn bis ma ma yëg ni ndeysaan daa ma fi nekk fenn di xuloo ndax man <laughs> comprendre nga ma yëg ko woo ko téléphone ne ko mais ma fi bul xuloo ah, baal yooyu ci guddi gi ma ne ko wax tey sax damay jouer soirée ñëwaaleel five ma ñëw na gis ko mu taxaw di fecc mais ni mu doon def loxo yi fecc bi rafet ma koy woy naan ko jaabira Mariama jaabira ñu enregistré ko affaire bi génn ah liñ naan moo ci <laughs> kiwam la woon yëfam la woon yàlla moo ko ci waroon a yàlla moo ko ci waroon a wane yàlla moo ko ci taal mu génn ñëpp bëgg ko sama doom ji maa ngi koy wax reménage ah. <laughs> d'accord euh, euh, euh, ah, li ma koy conseil mooy àdduna comme li ma wax rek lépp gëm sa bopp la. Mhm. waaw lépp gëm sa bopp la début bi dina difficile. mais bul xàddi fonk sa bopp fonk sa gox fonk say xarit fonk ñi la wër nangoo kilifa waaw ah, ndaw moom booy soog a door boo amee kilifa rek liñ naan li olof njaay naan Cheikh Moussa Ka naan am kilifa mooy li am solo boo ko amut amoo solo amal kilifa xam fooy teg sa tànk fonk say waajur nekk ci li nga nekk li ci def nga teg ko ci loxo yàlla loolu laa leen di conseillé. Euh, Sidy Diop est-ce que da nga nekk ci relation ndax am na koo nekk di ci. eh waaw mais waaw maa ngi ci ba mu baax. ah ah, ah non non non non non non xam kan la nag non dama koy nëbbu si non dama koy nëbbu. non ba ba baa ma nëbbu ko xam nga sama xarit nga baa ma nëbbu ko rek dama am benn affaire bu may dégg pour vivre heureux. ci laa ne nii. d'accord léegi <laughs> ñu euh, waaw mais amaat contentement bu mag a mag a mag amaat bu mag a mag a mag ci waa ci waa Sénégal amaat contentement bu mag a mag a ci askan wi di gërëm aussi suma producteur muy Matar Diop suba teel borom suba teel production maa ngi koy maa ngi koy nuyu maa ngi koy gërëm moom mi waral ndaje bi euh, di ko di ko ñaanal yàlla. Eh, lépp lu mu bëgg ci ñun yàlla na ko suñu borom defal ko gunge ay ndaw nag daa metti eh, mais boobu ba tey nag ñu uuf duñu mooñal lépp yàlla na yàlla yeggale affaire yi ba nga xam ne dina dem fu kawe njortam di ko ñaanal ñëpp képp ku nekk suba teel suba teel gër la xale yi jigéen ñi suba teel gars yi góor mafia bi famille sax laay wax suba teel famille yi ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen béggee di nuyu aussi suma ay musiciens parce que feccum liir lu mu neex neex rek nday ji moo jàpp ci ndigg la suma musiciens yi man la ñuy tudd waaye li neex lépp ci ginnaaw ñoom la maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di dugg ci hôpital yi ah di di di képp kuy malaat ku fa tëdd maa ngi ñaan ci bu bees bi yàlla nga jub dellu ci sa njaboot ñi caabi féete ginnaaw suñu borom def ñu génn ah, ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon te nekkatuñ fi fa ñu tëdd gën leen fii ñu jógee lépp lu ñu fi wax nag loo xam ne dëng na ñu ngi koy jégalu li ci rafet yëpp ñu ngi jëlaat partagé waat ko yéen yàlla na gën a rafet di am contentement ci dalal leen di nuyuwaat sama papa sama yaay suma soppee yi di leen wax nañu ma xaar à très très très bientôt ak waa teel affaire bu tàng jër mi ngi ñëw lu bokkut ak càq-càq bokkut ak yëngal beneen Sidi Diop léegi incha allah.